mawduu bi ñu nekk mawduu bu muhim maanaam bu am yitte lool rawatina jamono ji nga xam moom lañ ko amale te muy li nga xam importance bi nga xam moom la temps am importance bi nga xam ne moom la temps am xam nga dund doomu aadama yépp mi ngi tënku ci temps kon loolu rek day wane ne ne temps am na solo boo defee nit kooku nag naka la war a utiliser temps bi nga xam ne si moom la am xam ngeen ne lislam bi mu ñëwee dafa am nu mu tëralee dund ne noonu la nit war a dundee loolu lépp mi ngi aju ci temps comme xaw nañoo ñàkk quelques minutes ginnaaw bi ñu julee tàkkusaan léegi duma ci sori li may defee incha allah bàyyi ak oustaz kàddu gi mu gaar ñu li nga xam si ne mooy thème bi mu préparé ba pare incha allah ni war a contribuer ñu contribuer boo amee ay question tamit incha allah ñu def ko kon li ñuy defee mubasharatan incha allah mooy fadlat oustaz la tàmbal bi nga xam ne si moom
bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ixwaani asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam
ñi ngi sant yàlla tabaraka wa taala moom mi ñu may wér ak kàttan ak tal ba ñu mën a daje ak yéen waaye fàttalante ak yéen ci tomb bi nga xam ne tomb bu yitteel la tomb bu jar fàttali jullit yi la ndax dara tardeelul jullit yi tey lu dul ñàkk xam seen waxtu damay faral di wax ne yowmal xiyaam bu dee yàlla daf ñu jox heure ne heure sàngam ngeen di dugg aljanna ñun ñi ëpp ci waa Sénégal duñ dugg parce que respecté wuñu heure ëllëg bu ndee bu dee yàlla daf ñu war a dugal aljanna mën nañu huit heures pile ngeen di dugg da nga gis ku toog ba dix heures daagu ñëw sol ay cappam rose à lèvres ñëw teg kolam ñëw ne yàlla moom man dama yaakaaroon ne rek heure boo ñëwee baax na ci foye bu ñuy foye waxtu mbokk yi waxtu moom mooy dundu doomu aadama waxtu américains yi dañuy wax yëkkatil kàddu gi dégguma ko bu baax what time is morning ñu ne lan waxtu bi mooy alal ji ngay am gis ngeen ñoom ci gëm bu ñu gëm àdduna loolu moo tax ñu avancé bu fekkee ñoom àdduna la rek wala ñun jullit nag lu ñu war a wax what time is tiyaaba suñu waxtu yi dafa war a nekk utu tiyaaba mais maal asaf di nga gis koo xam ne ci ñàkk a waxtu xam waxtu préparation dem marché rek deux heures de temps marché ba quatre heures de temps bala mu yekk añ cinq heures ci ngoon xam nga lu ko waral mooy ñàkk xam waxtu wallahi dara tardé lul jullit yi lu dul wax ñàkk xam waxtu loolu rek moo ñu tardé est-ce que mën nañoo nekk ay jullit te chaque jour rek waxtaan bi rek ñu ne baal leen ñu suñuy waxtu heure bii la ron nañoo commencé ba mën nañoo dëkk ci loolu di baalu bis bu nekk. c'est pas possible mënul nekk en tant que mbooloo muy dund l'islam bis bu nekk ñu bëgg ci ne baal leen boo demee fi mu nekk nii li gën a tuuti ba ci kaw ba ci kaw laa wax ba ci comb tal nga fu ñu nekk rek baal leen ñu loolu dina wi jullit yi foog ñu xam waxtu foog ñu xam seen waxtu parce que waxtu bi mooy dund bi pour ñu xam importance su waxtu njëriñum li annahu man lam yaarif ahamiyatul waqt aasha mayitan wa in kaana yatanafas ala wajihil ard mbokk yi ku xamul importance waxtu day dund dee donte ne mi ngi noyyi dafa dee benn boroom xam-xam bu mag dafa doon defal ay ay jeunes waxtaan benn camp islamique comme nii biñ ko joxee thème bi ñu ne ko 9h ngay commencé dimbali ñu rek 9h na la fekk mu xëy suba këram julli ba fajar rek daal di joxe waa këram ndékki jabar ji ne ko ma tegale ndékki mu ne ko non non parce que biir Dakar laa jëm dama war a def war a war a def waxtaan te 9h lañ ma jox mu ñëw egg 8h fekk nit ñi yeewooguñu waa camp bi yeewooguñu mu toog ba gaa yi yeewu di ndékki mu toog ba 11 heures ñu ne ko bismillah mu dugg ci salle bi daan ne yéen ñii yéen a yéen a bëgg a jël nguur gi yéen yéen a bëgg a jël nguur gi ngeen ne yéen ñii yéen ngeen ne yéen a bëgg a tax samp kàddu laa ilaha illallah daa teg micro bi dem ñibbi mais la moo war a loolu mooy ñàkk xam waxtu mbokk yi ñun dañuy fooy waxtu bi rek te waxtu dafa cher borom xam-xam yi ne nañ ko xamul importance waxtu wallahi donte ne yaa ngi noyyi da ngaa dee te lii ab aaya alquran de wa hadha sirru qawlul kafirin inda sualihim li mooy sekkere waxu yéeféeri keroog bi leen yàlla laajee qaala kam labistum fi l ard adada sinin qaalu labisna yawman aw bada yawm fas'a lil aaddiin yéeféer yi bi ñu demee yowmal xiyaam dañ leen a laaj ni leen yéen ñaata at ngeen am adduna xam ngeen dañ doon fooye seen dund comme laaj nañ leen ñaata at ngeen amee adduna ñu ngi doon fooye seen dund lan lañ tont labisna yawman aw bada yawm ñenn ñu ne ñun benn bis lañ fa def ñenn ñu ne genn wàllu bis lañ fa def loolu moo am ni dañuy nekk di foo di foo di foo ba waxtu wi ñu ne aboo commencé parax parax yi di njëkkanteeg waxtu wi loolu baaxul lu nekk da nga koy def ci waxtoom gis ngeen même julli yàlla ne inna salaata kaanat alal mu'minina kitaaban kitaaban voilà kitaaban mawquta julli sax yàlla ne dama ko utal heure lu nekk dafa am waxtu lu nekk dafa am waxtu mais bu fekkee ne lu nekk dafa am waxtu ñun ñu bëgg ci ne di jaxase waxtu yi di bâcler di bâcler li muy tekk mooy sunu dund du dem du dem day yàqu parce que waxtu yi ñuy foowe mooy mbir mi mbokk yi fa inna ra'sa maalul muslim fi hadhihi dunya huwa waqtu alladi huwa maddatul xayaa doomu aadama coffre forum wala magasin wala alalam bénéfice bi mu am ci adduna bi mooy waxtoom sa waxtu wi ci ngay jaamu yàlla pour ëllëg nga mun a am ay bénéfice mais bu fekkee ñun sunu waxtu yëpp lii la lekk naan cëppi cëppi fecc way wala waxtu wi duñ ko jox importance duñu jaamu yàlla sunu lépp du dem gis ngeen liggéey bi dara taxul muy sooxe lu dul joxuñu waxtu wi importance sam da ngay gis sama yaay yaa ngi ni toog léeg-léeg ñu ne kenn am nga majlis mu ne dama am ngénte suba dama am ndey ndikki suba suba dama may gan suba damay jaxal suba nangam nangam ay xoolal gis nga sunu yaay yaa ngi ni sunu yaay yaa ngi ni laaj leen laaj leen laaj leen sunu papa yaa ngee toog feek joxuñu waxtu wi gëddëm teg ko place am sunu liggéey bii du dem dañuy dañuy làmbatu rek dañuy làmbatu rek te olof yi nee nañ ku noppi ndax sa sa aajo faju liggéey bi foog ñu takku jox ko yon yonent bi dafa joxoon liggéey bi àq liggéey bi tere ko nelaw liggéey bi tere ko lekk liggéey bi tere ko naan liggéey bi tere ko lu nekk yaa ayyuhal muzammil qumi layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalil aw zid alayhi warattalil qur'an xool yàlla da ko ne bul nelawati guddi yaa ayyuhal muzammil qum yaa ayyuhal mudassir qum qum mooy lan jógal boo jógee lay def ah qum fa anzir gis nga mooy nelaw jeex na lii ku ci bokk lekk jeex na nelaw jeex na fo ay dafa jeex allahu akbar ñun ñu bokk bëgg a bokk ci lii te chaque jour rek xoola kii léegi kii daf ma tere def sama programme mi ngi nii toog tafsir laa bàyyi jox ko keneen faxar faxari fii mu luwe taxi munoon na ñoo jël Ndiaga Ndiaye wala Sibera ñëw fii mu ngi nii ban heure lañ commencé chaque jour nii la chaque jour nii la nii la nii lañ nar a dee bu nu yàlla soppiwul nii lañ nar a dee loolu baaxul chaque jour bu ñu nee 3 heures 3 heures la bu ñu nee 4 heures 4 heures la bu ñu nee 5 heures 5 heures la loolu mooy tax liggéey bi dem dund mais chaque jour ñu ne nangam nangam nangam nangam waxtaan boo dem waxtaankat bi moo fay jiitu ñuy def wax ñuy déglu si chaque jour fu ñu la ne 5 heures la nga ñëw 5 heures 6 heures la ñuy commencé fu ñu la ne 4 heures boo ñëwee 4 heures 5 heures ngay commencé ci ñuy dund diine il faut ñu bàyyi xel ni lii du ay caaxaan mbokk yi wal waqt anfas min al maal waxtu moo gën a seer alal gis ngeen alal ni ñu koy gérer denc kan mooy fooy alalam xale yu ndaw yaa ngi ni toog koo ci may juróomi dërëm sax nii la koy ngëbe du réer bakkanam la ciy teg nañ fi may kenn xaalis léegi am ku ñëw bu ko nangu ah bakkanam bi la ciy teg te alal la waxtu wi nag moo gën a cher alal mbokk yi ba ax la xam nga bala ngay xam ne waxtu moo gën a cher alal suñ ne woon tey kenn ci ñun da ngay dee fekk mu ngi yor 2 millions 4 millions mu ngi yor 1 milliard malakal mawti ñëw toog da ko boo ma joxee 1 milliard bi ma bàyyi la nga dund nu muy def 1 milliard bi da koy joxe wala da koy da koy bàyyi dama leen di laaj am na 1 milliard malakal mawti ne ko lan nga yor mu ne 1 milliard mu ne ko soo ma ko joxee ma bàyyi la nga dund donte ne day yalwaan yi da koy jox kon waxtu wi ak alal ji lu gën a fort waxtu wi moo gën a fort mbokk yi foog ñu xam loolu fekk gëmuñu waxtu wi ne moo gën a fort lépp moom mooy dund doomu aadama dun dem ci waxtu importance bu mu am moo tax borom bi tabaraka wa taala daal di ci giñ yàlla du giñ ci lu amul solo xam ngeen yàlla xam ngeen yàlla buur bu tol na yàlla borom asamaan ak suuf yàlla mu bind moo nga xam ne mooy borom jaam ñi lépp ci loxoom la nekk yàlla du ku ndaw de nee na asamaan ak suuf yowmal xiyaam dama koy lem téye ko ci sama benn loxo ndeyjoor ko ku ndaw la kooku di giñ ci lan la giñ mu ne wal asr giñ naa ci jamono giñ naa ci waxtu wi wala yàlla di giñ ci waxtu innal insana la fi xusr doomu aadama yépp dañoo perte lu tax parce que dañuy fowe seen dund waxuma sax ñun ñi mais génn leen rek jaar ci mbeddi ndakaaru génn leen jaar ci mbeddi ndakaaru allahu akbar génn leen jaar ci mbeddi réew mi dugg leen ci stade yi dugg leen ci dugg leen dugg leen ci ruq-ruqaat yi ngeen gis ni ñuy foyee waxtu wi benn benn jigéen de boo xam ne Union soviétique la dëkk dafa ñëw Sénégal ñëw université Cheikh Anta Diop de formation muy discuter ak benn mbokk ne ko man daal vraiment seen réew mi jaaxal na ma fii daal yéen jullit ñi ñu yambare ngeen seen diine ji baaxul yéen seen diine ji leen tardel mu ne man damay xëy gis nit ñi ci mbedd yi ñu toog grand place yi di ñii nii nii kooku ne ko non du islam bi de mu ne ko non si islam bi la seen diine bi la mu ne ko non du islam bi ñoom ñaar ñu discuter ba mu tàng kooku ne ko est-ce que union soviétique bi nga jógee amul ay jullit mu ne sii am nay jullit mu ne ñooñu nii lañ mel mu ne non mais lu ñu nii mu ne voilà kon du islam fekk ñii nii lañ mel forum nga gis ay grand place ñii di waxtaan ñi toog ñi ngi damyee ñee ngi ñi ngi ci stade xoolal suba ba ngoon di seetaan lamb lamb bi ban heure lay commencé 5 heures ci ngoon ah ban heure la stade bi di fees 6 heures du matin nga gis am ñoo xam dañuy fanaani am ñoo xam dañuy fanaani ndeysaan allahu akbar ñun foofu lañ toll avec ça ñu bëgg a dem moo tax it coupure yi ngeen di gis coupure courant yi ngeen di gis du hasard ah dund ngeen gaz bi ngeen gis muy yokk të taxaw sonatel bi ngeen gis muy muy mais yàlla du def hasard yonent bi nee na nu ngeen mel yàlla indi leen buur bu mel noonu mu leen di caw du hasard yàlla du def dara pour hasard qad jaala allahu li kulli shay'in sabab loolu loolu du hasard du hasard na ma ne ñu nekk ci réew mi nekk 90 95 pour cent nekk ay musulman ñu ñuy caw nii guddeeg bëccëg te ñuy julli di ñaan yàlla réew mi mel nii nit ñi ñaan ba tas yàlla mënul nangu mbiri du hasard du hasard il faut ñu delluwaat tuub dellu ci yàlla jox waxtu wi gëddëm bañ a foye sunu dund yàlla moo tax mu ne innal insana la fi xusr mu sette ñeenti nit wala ñeenti mbir illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr ñi perte seen dund ñeenti ñi ñoo ci bokkul ñi gëm yàlla taxaw ci jëf-jëf yu baax farata yeeg naafila yi ñu respecté ko ñuy dénkante dëgg ñuy dénkante muñ gis ngeen saar bi importance bu mu am moo tax sahaaba yi ñaari sahaaba ci jamono yonent yàlla muhammad ba ci ginnaaw dundam ñaari sahaaba musuñoo daje lu dul danañ nuyante daa di wax benn baat taal nu'minu saa toogal ñu fàttalante ban la la la ñuy fàttalante saar bi la ñuy jàng mooy wal asr ku nekk fàttali ko sa morom ñu doog a dem mbokk yi waxtu wi dafa cher moo tax yàlla giñ ci wa huwa dahr allazi huwa zaman ci la doomu aadama di amee bénéfice ci la doomu aadama di defee jëf yu baax ci la jullit di taxawee ci kanamu yàlla ëllëg fees dell ki tiyaaba waa ji nga xam ne dafa reer ba pare fanaane naa fi la yow nga reer ba pare tëdd di nelaw kan moo jëfandikoo ay waxtoom ki julli fajar ba pare jël téereem di jàng ak ki julli ba pare sol kilotam topp tefes géej di daw ñoom ñaar kan moo jëfandikoo waxtoom kon mbokk yi foo ñu delloo si sunu xel ñu xam ne doomu aadama ku la raw rek mu ngi la rawee ci jëfandikoo bu mu jëfandikoo waxtoom ku la raw ci loolu la la rawee ndax ay kéemtaan yi ci nekk ak ay waaraate yu nekk ci waxtu moo tax borom bi tabaraka wa taala mu ne ci leeral loolu ne dafa bokk ci xéewal waxtu xéewal la bu doo bu ko doomu aadama jëree jëriñëw mu ne wa saxara lakum leyla wa nahaar wa shamsa wal qamara wa nujumu musaxaratum bi amri inna fi dalika la ayatin li qawmin yaqiluun sayid xawa rahimahullah dafay wax ci tafsiram yi ci téere mi mu ne bu ngeen di jàng alxuraan na ngeen bàyyi xel fin wu aaya yi alxuraan boo bëggee boo koy jëri boo ko bëggee jëriñëw saa yi ñu la waxee benn aaya fu mu jeexee bàyyi ko xel bul bërëx bërëxi dem taxawal tem xoolal aaya bi fu mu jeexee yàlla nee na man yàlla maa leen tàggatal guddi ak bëccëg maa leen tàggatal jant bi ak weer wi maa leen tàggatal biddéew yi yépp ci seen njëriñ lay daw yow doomu aadama waaye loolu kéemtaan gi ci nekk mooy kuy xalaat la ayatin li qawmin yaqiluun ñii xalaat ñoo mën a jëriñoo loolu ñii xalaat ñoo mën a toog jëriñoo xoolal guddi li ci nekk ci njëriñ xoolal bëccëg fi mu nekk ni am na ci ñun ñoo xam ne boo leen joxoon micro nga ni lan yan njëriñ ñoo nekk ci bëccëg ñu ne la ci laay añ ci laay seetaan télé alaysa kazalik ñoo xam ne boo leen joxoon tey lan mooy njëriñu guddi ñu ne la guddi guddi kay amul benn njëriñ lu dul nelaw ma tëdd rek nelaw ba ma reeree ba pare ma tëdd nelaw ndeysaan yàlla nee na maa leen tàggatal guddi tàggatal leen bëccëg jant bi ngeen di gis yàlla nee na maa leen ko tàggatal ak xéewal yi ci nekk ak weer wi ak biddéew yi waaye loolu yëpp kan moo ciy jëriñoo mu ne li qawmin yaqiluun ay nit yu am xel gis nga yonent bi daan tëdd ba guddi am na aaye boo xam ne fi mu nekk ni sunna la pour boo wëlbatikoo guddi booy jóg nga jàng ko yonent bi saa salaam saa yeewu woon guddi moom lay jàng inna fi xalqi samawati wal ard waxtilaafi lleyli wan nahaar la ayatin li ulil albaab ñan ñooy ulil albaab gis nga de li li li sëriñ boobu di wax ci aaya yi xam nga yàlla nee na inna fi ixtilaafi lleyli wan nahaar guddeeg bëccëg ni ñuy jaxasoo lu mu ci teg mu ne la ayatin li ulil albaab li kéemtaan la ñeer borom xel yi def ba gis nga yàlla taxawul foofu bi mu nee borom xel yi rek dafa dem yan ñooy borom xel yi mu ne allazina yazkuruna allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi alsamawati wal ard lan la ñuy trouver résultat rabbana ma xalaqta haza batilan moo tax du ñu sànq seen waxtu comme xam nañ ne yàlla bindul li pour hasard xam trouver nañ ne rabbana ma xalaqta haza batilan kon subhanaka wa qina azaban naar yàlla mugal ñu ci mugalum safara kon lépp luy tax ñoom ñu mucc ci mugalum safara ñoom dañ ciy taxaw parce que yàlla bind ko pour hasard léegi nag mbokk yi fekk ñu góorgóorlu ñu xam njëriñu waxtu ah est-ce que jullit pire suñu noddee waxtu ba pare war nañ ko wax wàccal jàpp wàccal leen jàpp ginnaaw ba nga déggee nodd bi est-ce que jaratina wax micro bi wàcc leen jàpp ginnaaw ba nga xamee ne huit heures da ngaa war a dugg classe est-ce que jaratina acca ndekki ngeen ba pare yéeg leen kenn ku nekk yow yaay xam ne waxtu wi su ma defee dara ba pare rek damay dem toog mais ñun yàlla yal na nu yàlla yërëm gis ngeen gis ngeen rabu àll yi dund bi ñuy dund ñun moom la ñuy dund tey suñ ne woon suñ pare woon léegi waxtaan wi hélas daal di jël micro bi daan ne bismillah yéeg leen léegi nga gis ñu ñu burux buruxoo escalier yi buuxante ji fee loolu loolu ay xar ñoo ko moom ay xar ngay yeewu ngay yeewi tekki seeni buum ñu njëkkante porte nga leen di dugalaat tekki leen ñu njëkkante porte bi gis nga lii day topp sénégalais ba ba ñuy aji màkk xam ngeen avion bu fekkee ne avion bi 100 personnes lay def 100 personnes lay def 100 personnes yaa ngi ni ñoom lañ convoqué ñu ne bismillah avion bi nga gis ñuy daw di njëkkante place mais 100 personnes yi ñooy dem avion bi 100 personnes lay def est-ce que jar na njëkkante. man xam naa ku nekk ak sa numéro la xam naa fi may mais da ngay gis koo xam ne day daw ñëw toog ci place jàmbur fii maa fi toog maa la fi jiitu maa la fi jiitu peut-être si ñëw ne la eh làkk la tubaab mbaa anglais ne la jógal jógal nga naan duma fi jóg fii maa ko fi ñu ne la numéro la nga ne ah ah numéro xoolal gis nga non c'est grave day wone sénégalais ni ñu mel noonu la ñuy njëkkante Dakar dem dikk yi dañ koy njëkkante da ngay gis nit ñi lang ko bay lang ci buntu yi tata yi kaar yi kazalika super yi non mais vraiment ñun ñun dunduñu de ñun dunduñu dunduñu ah parce que li ñuy dund nii du dund nit rab yi sax dootuñu def lii yàlla ba mu adressé nit ñi ci ñu ne amuñu conscience ba aaya bi di yeex rabaal yi dañoo def délégation ñëw ci yàlla ne ko yow yàlla yaa ngaa bind nit may ko xel moom mu ñëpp xel téeméeri yoon mais bi nga koy xas da nga koo tolle leen ñun moo tax ziyaada bi am yàlla mu ne balhum adal balhum adal wallaay ñii ñoo leen gën a réer yéen yenn yi yenn yi yëfu rab la olof yi sax dañu naan def yaramu neen di wër foo yegg si ñu ne ak a rafet ñu ne fas la jit fas mooy def yaramu neen du sol mbubu te fu mu yegg si ñu ne fas week a rafet wala mais tey nit ñee koy def nit ñee def ay yaramu neen démb démb la woon vendredi de dañuy julli jumaa benn waaye ñëw sujjóot sama kanam kararat silib bi na farak ci biti parce que dafa kiris xaw ma jag daaw na xaw ma kiris karas kiris koros tuuti ma jàpp ci jiin bi yëkkatiwaat nga xam ne problème la la fi ni ma bàyyi ko ni xoolal loolu est-ce que yëfu nit la lan moo taxoon nit di sol tubéy war nañu xoolaat suñu bopp war nañu xoolaat suñu bopp mbokk yi ma ni war nañu xoolaat suñu bopp nan leen xoolaat suñu bopp mbokk yi lan moo tax ngeen ñëw camp da ngeen bëgg lu ngeen fi jële pour bu ngeen ñibbee ngeen changé kon da ngeen fi dégg lépp lu ñu fi wax ngeen jële ko mais bu fekkee ne jëlewu leen fi daal yéen ak ñi ñuy wax dong yéen a yem fii waxtu da ngeen fi ñëw pour gagner waxtu wi da ngeen fi ñëw pour gagner waxtu wi mais heure yi waroon na leen fekk ci kër yi ngeen di def lu bare bare bari mais dañu bëgg ci yéen formation moo tax ñu indi leen fii bu leen yaakaar ne da ngeen ñëw fii rek pour lekk naan ceeb yooyu ceebu jaga bi gaa yi togg tey ceeb bi neex na indi loolu indiw leen fi d'accord ngeen ak man mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tourné xelu sahaaba yi ci pour importance waxtu mu ne lan lan tazuula qadama abdin yawma alqiyama hatta yusal an arba'in xisaalin an arba'i xisaalin an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa wa an amalihi madha amila fihi hadis boobu Tirmisi solo na ko nee na hadis bu wér la bu rafet bu wér la lan la yonent bi wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na doomu aadama bu dee cëpp yowmal xiyaama yonent bi nee na asalaamaaleykum asalaamaaleykum dégg leen yonent bi mooy wax yonent bi wax kenn warul nag kenn warul yëngatu kenn waru nekk di wokkatante imaamu Malik da doon jàngale waxu yonent bi yéen ñett imaamu Malik da doon jàngale waxu yonent bi benn jiit di ko fet jiit xam ngeen jiit jiit bi di ko fet muy gaññ mais daggul wax ji muy dem jiit bi fet ko juróomi yoon bu mu paree ki mu doon jàngal ne ko tey gis naa la nga may jàngal sa kanam gi di changer juróomi yoon mu ne ko jiit moo ma doon fett te bëgguma dagg waxu yonent bi jiit moo ma doon fett te bëgguma dagg waxu yonent bi mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na doomu aadama bu ne cëpp yowmal xiyaam ñeent lañ koy laaj bi ci njëkk mooy an umrihi fii ma afna sa dund gi ci loo ko jeexal dund gi waxtu wi bokk na ci wala bokk ci sa dund gi ci loo ko jeexal est-ce que tey nit ñeme na ci ñun ñu ne la sa dund ci loo ko jeexal nga ne man dama doon seetaan tele rek man mbër laa woon wala man dama doon sim wala man disquette laa woon wala man rappeur laa woon wala man disco laa woon wala man nangam laa woon sa dund gi ci lan nga ko jeexal yonent bi ne dañ la koy laaj kon léegi suñ déggee lii suñu dund ci lan lañ ko war a jeexal mbokk yi suñu déggee lii soo demee yowmal xiyaam liñ lay njëkk a laaj mooy sa dund ci lan nga ko jeexal kon suñu dund ñun ci lan lañ ko war a jeexal jaamu yàlla ñaareel mooy an shababihi fi ma abla sa jeunesse bi nga amee 18 ans ba ba ngay am 40 ans ci lan nga ko jeexal fii ñaata at ngeen am kan moo fi am 18 ans ana ñoo ñoo fi am 40 ans 18 ans ba 40 ans yonent bi nee na dañ leen koy laaj allahu akbar kon foofu loo war a def mooy nga takku jaamu yàlla nekk ci jullit ci sa 18 ans ba 40 ans yooyu lu ne nga def ko ci jàng diine mokkalal alxuraan lu bari jàngal hadis lu bari jàngal ci fiq lu bari maa la saf tey mu ngi nii duñ jàng duñ jàng duñ jàng da ngay gis ku nekk ci sunna def ci juróom fukki at mënagul liir boo ko indiloon tilaawa du ko liir askar yu bare bari mënu ko surtout nag yéen jigéen ñi suñ organiser ay cours de soir sax kenn du jàngi loolu fan lañ ko teg ah yaay ay sa mokkaloon na ci hadis 2210 hadis 2210 fii kan moo mokkal 10 hadis yu muy tari micro baa ngi nii yu muy tari mu tagale ko 10 yow mokkal nga 10 ku mokkal 15 yooyu tari doo juum ku mokkal 20 yaay ay sa mokkaloon na 2210 hadis 2210 Abu Hurayra 5374 moo tax mu nekk ki ëpp li mu mokkal ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy Abu Hurayra kan moo ci topp Abdullah ibnu Amr ku ci topp Abdullah ibnu Abbas kan mooy quatrième yaay Aïcha naa ñun fii tey wallahi comme kii wax na mokkal ne diis bu gis nga keneen yëkkatiwul instant bi lan ngeen di def lu dul jàng lan lañ leen soxlaa lu dul jàng lan la leen seen yaay yi soxlaa lu dul jàng lan la leen seen papa yi soxlaa lu dul jàng instant yi ñu toll lan ngeen di def lu dul jàng lan bu fekkoon ne liggéey lañ leen soxlaa kon kenn leen indi fii mais gis nga diine rek ak jàng diine ak jàng kon foog ngeen jàng mbokk yi danañ la laaj sa ndaw ci lan nga ko jeexal waaye danañ la laaj sa alal foo ko jëlee ak foo ko dugal dina la laaj xam-xam bi nga amoon lan nga ci liggéeyal yàlla ibnu abbas radiallahu anhuma qaal qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam nicmataani maghbunun fiha kasirun min annas asihatu walfirar abdullah ibnu abbas nee na yonent bi nee na nee na ñaari xéewal nit ñi xamuñu ko nit ñi dañ cee perte ñaari xéewal ñaari mbir a ngi nii xéewal la waaye nit ñi xamuñu ko ñu ne yonent bi ñaari mbir yooyu lan la mu ne wér ak am temps wér allahu akbar xam ngeen ñan ñoo xam njëriñu njëriñu wér ñan ñoo ko xam dem leen hôpital ngeen fekk ñu tëdd nga gis koo xam ne ndeysaan moom soo ko ne woon léegi loo bëgg mu ne ñaanal ma yàlla ma dee ma bëgg naa dama bëgg dee rek ma noppalu am na ñoo xam ne loolu la ñuy ñaan xoolal dee pour noppalu ndeysaan dee pour noppalu semaine bi fekk maa ngi nekk Fuuta ñu woo ma téléphone di ma tàggee jigéen joo xam ne feebar na deux ans mujj gi xam nga lan la mënul lekk fii lañ bënn fii dugal fa raakol jaarale ko nii su lekk jotee dañuy def ay ay lekk def ko ci benn pikiir pikiir ko ci raakol bi affaire bi daal di jaar fii te deux ans la nekkee noonu deux ans raakol la wax raakol lañu fii lañ bënn fii dugal ko fi su lekk jotee ci raakol bi la ñuy pikiir lekk bi lekk bi daal di dem te kooku ndaw la ñu ndaw ñoo ñu ndaw la tey boo doon dem hôpital di nga gis yenn cas yoo xam ne soo ñëwee di nga toog deux heures de temps doo normal ndax li nga gis kon ñun ñi ñoo nekk fii di foowe sunu temps sunu wér gu yaram wér bii dañu wér fi mu nekk ku xëy di cëppi cëppi soo yëkkatee loxo yi mu jóg tànk yi jóg fekk nañ benn waay boo xam ne tëdd na cinq ans benn borom xam-xam bu mag di ko seeti bi mu ñëwee Matrud Abdullahi al Matrud moo ko seeti woon bi mu ñëwee ne ko loo gën a bëgg mu ne ko saa yu ma déggee hayya ala salaa foog sama ronkoñ génn parce que musuma ko wuy ji tey loolu rek laa bëgg waaye saa yu ma déggee noddukat bi di noddu du ma mébét loolu rek jóg dem jàkk mais mënatuma ko tey ah am na ci benn borom xam-xam boo xam ne ki mu seeti kooku bi mu juddoo ba léegi waxuma la dox mais musul taxaw lan moo màgg ci yaram bi mooy bopp bi bopp bi rek moo màgg yaram bi yëpp dafa nekk liir mais bopp bi rek moo màgg bopp bi rek a màgg yaram bi yëpp nu mu meloon liir la mel benn borom xam-xam seeti ko waxtaan ak moom waxtaan ak moom waxtaan ak moom bay ñibbi ne ko tey lan nga bëgg yàlla may la ko lan nga gën a bëgg tey jii ci àdduna yàlla may la mu jooy jooy bu métti mu ne xam naa nii ma tëdde moom ma yàgg ci ah xanaa ci sama xol bi moom mooy mooy yàlla sama xol bi mooy xalaat mooy yàlla mais musuma mooy yàlla parce que musuma musu judd naa ba toll nii ma toll tey am naa juróom fukki at musuma génn sama biir néeg lépp fii lañ ma koy defal mu ne xam naa kon su ma fekkee ne am naa bàkkaar sama xol bi la mu ne waaye lenn dong laa bëgg lenn dong laa bëggoon te yàlla may ma ko mooy may dox di ànd ak jullit yi di bokk ci sàppe jàkka yi xoolal ñooñu mbokk yi li ñuy mébét xoolal ñooñu li ñuy mébét ñun bu julli jotee fii nodd rek du doy foog ñu la waa jo wa waa ci leen julli julli rek du doy nodd rek du doy foog ñu yuuxuñu waa ci leen julli allahu akbar lu tax mooy ñee dañoo xam importance waxtu yi dañoo xam njëriñu wér beneen bi nga xam ne dañ ko perte mooy njëriñu am temps am temps alfaraax Sénégal li ñuy fowee ci waxtu suñ ko doon liggéey kon réew mi dem na li ñuy fowee ci waxtu c'est trop wallahi damay faral di wax mbokk yi même réunion sax réunion liñ ciy def ci temps dafa ëpp dama koy faral di wax sama mbokk yi fee damay yenn saa yi damay gedd dem seen réunion de bureau réunion de bureau trois heures de temps da ngay reer ba pare ñëw di réunion ba minuit mais ça c'est trop dañu war a organiser lu nekk nañ ci jël lu ndaw tey bu ñu réglé lii suba ñu ñëw réglé leneen mais ñu bëgg a jël adduna bi yëpp bokk ko réglé benn minute mënul nekk du dem dañuy sonal suñu bopp dañuy réglé benn mbir bu fekkee fukki sous section ñoo am problème ñu jéem a réglé ñaar seet ñaari sous section yi tey jii réunion bi ñoom ñaar lañ ko jagleel seen feebar lan la ñu jéem ko réglé mais fukki sous section ñu bëgg ko réglé benn yoon du dem benn bi rek balaa muy pare heure bi jeex ñu ne nañ ci yokk 30 minutes 30 minutes bi jeex ñu ne waat nañu wote waat xam nga lu muy bu yàggee ci mbooloo mi dafa am ñuy énervé toog bokk ci réunion bi mais duñu xalaat toog nii rek parce que seen dañu programmé woon leneen léegi seen xel fa lay nekk. léegi bu ñu bu ñu bàkkalee réunion bi affaire yi bàkkale bàkkale ba mu jeex tàkk ñu jël jugal ci tiroir yi kenn du ko defi. musiba la yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la daan réglé ay mbir mbir mu nekk benn la daan jël. xuzu min al amali ma tutiquuna fa inna allaha la yumillu tatamillu yonent bi nee na jël leen lu ngeen attan yàlla du yokkat yonent bi da fekk soxnaam benn soxnaam ci soxna yi mu lax xaw ma tàntaam la mi ngi laxas benn buum dinaa fi la guddi laxas buum bu buggee sonn nga xam ne mënatul taxaw day langaamu ci buum bi taxaw langaamu ci buum bi pour du toog ah yonent bi ne ko li nga def bëgg a def de du dem yaa ngi bëgg a yenu loo attanul jëlal loo mën xuzu min al amali ma tutiquun jël leen lu ngeen attan yàlla du yokkat lu dul ngeen yokkat jëlal loo mën kon mbir mi loolu la mbokk yi su ko defee ñu xam ne tey ku gis dundu doomu aadama yi man raa haalu nnaas alyawma maa alwaqt yakunu jawaabu taajubuhu annana xuliqna linaakula wa nashrab wa natamatta wa nalab faqat tey ku xool sunu situation dund nga càmbar ko biir ak biti li nga ciy jële mooy waaru da nga yaakaar ne doomu aadama yi yàlla dafa leen a bind pour lekk ak naan ak fo caaxaan dem dikk tabax ay château tabax ay kër dajale ay yére nga gis armoire lu yére bu fees daal gis ngeen ki ma leen di wax ni barki démb dafa dee ci biir feebaram boobu mu tëdd de jot na fi tane rek teggi fi benn 500000 daw dem Touba Sandaga xottil la ko gëni laa yi ma la wax jënd pere dàll jënd ay prix xoolal ku feebar ba toll foofu de ñu lay defal raakol ngay lekk raakol mu féex benn féex rek nekk waa kër gi maa ngi ñëw luye taxi ndeke dafa teggi nat dem jënd 70 ganila 5 prix 10 peeru dàll ñoo def ci armoire bi xoolal bi mu dee lañ xam lañ ko xam ganilaay solu ko de gis ngeen ngir àdduna àdduna rek mooy li waa ji wax ni xoolal ku nekk ci sukuraat nga oolee nga tuub dellu ci yàlla ngay xëccoog àdduna di gën a la ngaamu ci àdduna di gën a la ngaamu ci àdduna xoolal di xoolal ku egg fii waaye mbokk yi war nañu dellu ci yàlla tabaraka wa taala ñu xam ne yàlla binduñu pour foo pour lekk benn borom xam-xam dafa ziyaare ji benn taalibeem mu ñëw rek nekk taalibe bi dafa organiser soirée ci biir kër gi mbetteel rek mu yegsi ñëw fëgg bunt bi taalibe bi ñëw ubbi rek gis sëriñ bi la mu tiit mu ne sëriñ damaa occupé tey quoi am am 2000 yi nga jël taxi ñi bi sëriñ bi ne ko maa bañ rek sëriñ bi dégg naa affaire yi ci biir sëriñ bi ne maa bañ de mu ne sëriñ ma jox la 3000 ndax nga dem ba beneen sëriñ bi ne maa bañ mu ne sëriñ ma jox la 5000 sëriñ bi ne maa bañ mu ne sëriñ loo bëgg mu ne ma dugg ci biir fi laay fanaan tey mu ne sëriñ tey dama occupé sëriñ baa ngi dégg musique bi affaire baa ngi ñëw ba ci buntu kër gi te moom léegi am na kersa bëggul sëriñ bi dugg gis situation bi foofu nu mu demee moom ne ko sëriñ bi dégg rek du xam lu ci biir loolu la bëggoon sëriñ bi ne ko maa bañ tey fii laay fanaan mu daal di buntu bi sëriñ bi dugg rek gis xale yu góor yi xale yu jigéen ñi di cëppi cëppi sëriñ bi daal di ñëw rek daal di jël seesam toog jàkkaarloo ak ñoom ñu cëppi cëppi cëppi cëppi cëppi cëppi ba sonn sëriñ bi mu ne dijë bi alma micro bi xool mu ne arrêté tuuti mu arrêté mu ne toog leen ñoom ñoom ñu toog mu ne ndax am na ci yéen ñu jàng alxuraan et ñu ne ah mais ñun ñëpp jàng nañ nous sommes des musulmans mais pourquoi aussi toi aussi. mu ne du jàng ngeen alxuraan ñu ne waaw jàng nañ kay mu ne waaw dama bëgg maa ngi jàng ni ab aaya su ma juumee rek gàgganti leen ma ñu ne ko waaw bismillah rek mu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyal'abun lu mu waroon wax lu mu waroon wax illa li yabudun moom lu mu wax illa li yalabuun rek ñu ne ko subhanallah sëriñ bi mu ne lan la ñu ne ko yàq nga mu ne lu ma yàq ñu ne da ngaa ne wa ma xalaqtul jinna wal ins illa li yalabuun du yalabuun de mu ne lan la ñu ne illa li yabuduun mu ne leen lu ngeen di def nii lan la yàlla dene dama bind nit ak jinne pour ñu jaamu ma moom mu ñëw jàng aaya bi ne yàlla dafa bind nit ak jinne pour fo ñoom ñu ne ko déedéet du pour fo de pour jaamu la mu ne leen li ngeen di def nii lan la ñoom ñoom ñu toog xoolante mu ne lii lan la lii ibaada la wala laib la ñu ne wax dëgg yàlla sëriñ bi lii fo la mu ne kon li moo tax yàlla bind leen ñun léegi waa Sénégal lan la ñuy def ñun yàlla dene wa maa xalaqtul jinna wal ins ñun ñu ne laa li yàlla abun ñun dañuy fo rek foo guddi foo bëccëg foo bi léegi amatul sax waxtu foo rek ku foowul bokkoo fookat yi sax ñoo fi ëpp xaalis léegi Sénégal ñii foo ñoo fi ëpp xaalis xoola barki démb combat bi ñaata seconde la ñaata seconde la eh seetaan ngeen ko waay seetaan ngeen ko fii la leen fekk ah rëcc ngeen rëcc ngeen kon waaye xam naa ne bu ngeen bi ngeen fi nekkee fi ngeen nekk mais am na ceen ñu bëggoon seetaan oustaz oustaz indi ñu fi benn télé waay amuñu la ko wax ñu ne indi ñu fi benn télé ñu xool wala rek ndeysaan foofu lañ toll tey ñëpp léegi la ñuy riir ndeysaan kenn du liggéey ñëpp teel a wàcc ndax combat bi ñaata seconde nga dégg ñu ne la 4 secondes la ñaata milliard ñaata million ñaata million 70 millions 30 secondes ñu jël suñu xaalis rek di lekk jël suñu xaalis la suñu xaalis rek la ñuy foye xaalis réew mi 30 secondes nit am ci 70 millions yoo xam ne yow dóoruñu la ab kurpeñ ñàkkoo nga jël sax même bu ñu la daanelee nga jël sa xaalis jënd sa oto bu rafet jaar ci mbedd mi di dem ndeysaan nit ñi di la xool defoo dara loo def lan nga ci def dara am 70 millions dof yëpp dem seetaani jël seen xaalis seen xaalis la ñuy jël xoolal ñun ñi fii nii ci camp bi nii ñu toog ku nekk bu indee 1000 francs ñaata la ku ne ñun ñu toog fii rek fii di déglu ku nekk 1000 francs ñaata la léegi nag ku nekk bu indee 5000 ñaata la ñu dajale stade stade Demba Diop ni mu toll ku nekk ñaata ñi 5000 la ñuy paas ñi 10 000 la ñuy paas ñi gën a dee ñooy paas lan 1000 francs loolu lépp ñu dajale ko ndeysaan séddoo yéen ngeen toog fii di seetaan rek ñuy séddoo seen xaalis seetaan rek waxuma loolu sax jàmm la supporters yi ñii di dee oto yi di mbëkk tali yi ku dee ci bëre looy wax yàlla ku dee léegi malaaka bi fekk la biir ba mel ne la yow foo dee nga ne dama seetaani woon Balla Gaye loolu nit ñi mën na ko tontu ci kanamu yàlla dañ xoolaat suñu bopp mbokk yi mbokk yi xam ngeen lu tax camp yi ñu koy organiser mooy pour bu ngeen fi jógee ngeen bañ a sànq waxtu yi toog nii sax di seetaan télé di seetaan làmb toog nii di seetaan télé yàq waxtu la ñaata ay alxuraan nga fi mën a jàng ñaata hadis nga fi mën a mokkal ñaata rakk nga fi mën a julli waaye xoolal amoo loo toog depuis 4 heures toog depuis 4 heures mbër mi ñu ne ñëwagul ba mu ñëw sangu tuus tuusam nga toog rek toog rek ba timis timis sax doo ko julli ci waxtu yi ba timis passé nga doog a jóg doo julli de parce que sa mbër moo daan nga daw zibile ak sa kaala yuuxu yuuxu ci mbedd mi ah ak sa kaala gi de kaala bi nii nga daw ñu ne ah ibaadu yi sax léegi dañuy kii nga ne ah ibaadu ba ci lan dama koy faral di sama fans la xëy suba doo ci yem de sa yaay jox la dépasse nga dem xaaj dépasse bi jënd ci photo bi indi indi dugal ci sa album kooku xam nga benn bis bu ñëwoon bu ne leen dama laa bëgg a takk nga nangu waaw xale yi toog fii am na ñoo xam ne bu Balla Gaye ñëwoon bëgg leen takk wala Modou Lo ñu nangu de ah baax na toog leen fi daan yàlla tere un jour viendra ngeen am goro mbër de amira boo ci waxut bisee ngi ñëw ngeen am goro mbër de parce que au lieu ñu bëgg ñu jàng alxuraan au lieu ñu bëgg ñu am diine léegi bëggatuñu ñooñu lan la ñuy xool ah xaalis ak lu kenn xamut kon bise ngi ñëw rek ñu indi la fii léegi léegi benn ne la aja ta kii kii mooy sama bërëm kër ne gani waaw kii du diw ñu ne la waaw moom la koy mooy bëri ci la am bi yàlla ci yàlla musal mbokk yi tey loolu mooy sunu mbir tey bokk nañ ci mbir yu baree baree bari ci mbiru àdduna jaxase koog nit ñi waaye dem nañ sax ba jël jikko rabu àll yi jikko yéeféer yi nga xam ne yéeféer moom àdduna am yépp lan la lekk ak naan yéeféer yi lan mooy seen jubluwaay ci àdduna mooy lekk naan cëppi cëppi def tourisme wër monde bi dugg ci géej gi paccax paccax yi ci tefes yi yéeféer loolu mooy mbiram xam nga lu tax moom àdduna la am ñun nag sunu dund dafa cher mbokk yi sunu dund dafa cher waxtu wi dafa cher pour ñun parce que ci la ñuy am ay tiyaaba yu ñuy dugal ëllëg aljanna waruñu nuroog yéeféer yéeféer la yàlla santul lenn moom amul lu muy julli amul lu muy woor amul lu muy def amul lu mu war a jàng amul lu mu war a mokkal moo tax xoolal yéeféer yi ñoom ñooy def tour de monde di wër def rali rali xoolal Paris Dakar ay oto di daw di accident di dee jël ay avion di def lu kenn xamul xoolal géej gi loolu yéeféer yi ñoo ko moom ñun julli di moomuñu loolu ñun sunu dund dafa cher yàlla def ñu koy laaj ëllëg nooyi boo nooyi dañ la koy laaj ëllëg nooyi par nooyi benn waaye day wane ne importance su dund muy wane mu ne dafa mel ne benn waay boo xam ne benn xaritam dafa am xaalis bu baree baree baree baree baree bari waa ji nag ba mu gëjee gis xaritam bi yàgg na ñoom ñaar ñu daje kenn ki amul dara bu añee du ndékki bu añee du reer bu réeree du ndékki amul dara mu dajee xarit bi xarit bi lépp la am xarit bi ne ko yow nii nga mel mu ne waaw waaw mu ne man xaw ma ne nii nga mel seet si ma mu ñëw seet si xarit fekk xarit baa ngi yor ay magasin wu or ak alal mu ne ko lan nga indaale mu ne ko man kay indaalewu ma dara mu ne ko sa poos yi rek nga yor mu ne waaw mu ne dama bëggoon nga yor nga ut ay saak nga sol ay saak ba mu fees nga yóbbu sa kër ci alal ji kooku ne ko indiwu may saak mu ne ko magasin bi ay saak la dama nga yullu yëpp nga sol ko ba mu fees nga yóbbu sa kër waa ji daa dem ubbi magasin bi gis fa saag yi mu génn saag yi fëgg ko bi muy fëgg saag yi rek mu tourné rek gis benn lal bu nooy waa ji nag daal di koy woon ne ko saag yi sol ko ba mu fees saag yi bu ci fees rek yaa ko moom waaye boo solul perte nga te heure laa la may une heure de temps laa la may parce que damay dem nga gaaw génn damay tëj saag yi nag solal ba mu fees bu fees rek yaa ko moom waa ji dugg mu xool montre am une heure de temps lañ ko may mu ne bon xaaral ma comme gis naa fi lal bu nooy bi xaaral ma tëdd fi tuuti ma noppalu après incha allah ma jóg sol sama saag yëpp ma dem ñibbi ma nekk borom alal lal bi moom lal bi nga xam ne ko gis lal bi boo ko xoolee rek da ngay gëmmintu ndax nu mu nooyee mu ñëw daal di tëdd ci lal bi di nelaw ndeke heure ba jeex na mu jékki-jékki rek xarit bi ñëw fëgg ko ne ko pare nga sol mu ne non non dama doon kii mu ne ko génnal daal di xëcc bunt bi tëj loolu mooy dund doomu aadama hatta iza jaa ahaduhumul mawt lu muy wax qaala rabbi irji'uuni la'alli a'malu salihan fi ma tarakt lan la ko yàlla di wax kalla innaha kalimatun huwa qaa'il gis nga tey doomu aadama mun na nekk di fo di fo di fo ba dee malakal mootu ñëw taxaw sa kanam nag ne la tey de da ngay dee lu doomu aadama di wax ay yàlla bàyyi ma ay sama bàyyee bu soobee yàlla duubul kol laay muuroo duubul kol sama nopp yi dootul feeñ sama kawaru bopp bi kenn dootu ko gis ci mbedd yi man kenn dootul gis sama baat yenn saa yi sax daanaa ko karaj karajal di ko def kolu oiseau ma kii ko nii génne fii nii cag-cagal fii incha allah yàlla malakal mawti baal ma loolu dootuma ko defeti dinaa jël jilbaab jilbaab laay ut xam ngeen li ma wax am na muuraay yoo xam ne kol boo xam ne boo ko muuroo gars yi di la gis fële nga jël ko yematuma lool daal di koy def ni kirij kirij kaj kuj génn nopp yi surtout nag bu la sa yaay jëndalee ñaari jaaro yu xaw a bees nga xel fa ma woon ñoom Fatima ñoom bisu sama kii yi quoi ah yéen a ngi reere lu xew ah xaaral ma am na ñoo xam ne foofu moo leen sama sama jaaro yu bees yi tey tey laa ko jënd foog ñu gis ko di ngeen ko gis par force daal di jël kol gi ne ko nii ci ginnaaw takk fii naan nii nag pour gaa yi gis am na ñaari jigéen ñu doon wujje ci kër kenn ki ñaan jëkkëram xaalis daal dem léttu ji léttu yi rafet keneen ki tamit daan ñaan jëkkëram daal di fuddun léegi nag ki léttu bëgg naa woon wujjëm bi ne man damaa léttu mu jóge fële rek ñëw rek daal ne ko yow yow gisoo sama xar yi sama xar yi gisoo ko kooku daal ne ko dama fee yendu gis nga ah xam nga loolu mooy lan loolu mooy lan mooy ku nekk na gis yow tamit ñu jënd la benn ko- benn jaaro rek moo tax muurootoo benn jaaro wala nga létt rek tax muurootoo benn jaaro rek wala benn létt wala nga am benn kol rek nga ni kol gi il faut tey ma karaj karajal ko est-ce que loolu diine la est-ce que loolu diine la mbokk yi seetaan leen muuraay yi mbokk yi nañu xoolaat muuraay yi dégg ngeen mbokk yi xoolaat leen muuraay yi mbokk yi nañu xoolaat sunu muuraay yi dégg ngeen kan moo tax ñuy muuru waaw mbir soo koy def ngir yàlla ni ko yàlla bëggee nga koy defee wala ni ko wala yow ni nga ko bëggee ah ni ko yàlla bëggee yàlla nan la ko waxee ci alxuraan ne na nga ko defee noonu mooy bu mu xat bu mu yaraax bu mu bu mu bu mu loolu la yàlla wax kon bul jàpp ne da ngaa war a muuru par sàmba bul jàpp ne da ngaa war a muuru ngir demb da ngaa war a muuru ngir kan am na benn téere bu ndaw bu tudd man amaraki bil hijab man amaraki kan moo la sant nga muuru téere boobu yéen ñëpp war ngeen koo jàng kan moo la sant nga muuru est-ce que sa papa la am na fi ñoo xam ne tey bu seen papa dee woon rek ñu commencé def nii col yi fii ci digg bopp yi fii génne lii am ñoo xam ne bu seen yaay dee woon rek ñu commencé ni nii ndax dañ naan ah man sama yaay moo man man lii gëmuma ko de bugguma ko sax sama yaay la rek sama yaay moo may forcé naan ñu ñun ay ba ku koy def ngir sa yaay wala nga koy def ngir sa pap wala nga koy def ngir sàmba wala nga koy def ngir demba doo am benn tiyaaba te boo dee da ngay dem safara kan nga koy def pour moom boo dee nga am tiyaaba pour kan yàlla rek kan moo tax ngeen di def lii ku tax ngeen di def lii yàlla kon nag yàlla moomu ngeen di def da ngeen di seet ni ko yàlla bëggee ngeen defe ko noonu mbokk yi mbaa mbaa ëpp lu ma nañu xam ne ñun suñu dund du lekk ak naan rek ak fo weesu nañ foofu ak xool yéeféer yi ni ñuy dunde ñu bëgg a dunde noonu déedéet borom bi tabaraka wa taala day wax ci alquran afa hasibtum annama xalaqnaakum abasa wa annakum ilayna la turjaun bu leen yaakaar ne dama leen a bind pour fo bu leen yaakaar loolu ay aaya la yàlla def ñu laaj ndax da ngeen a yaakaar ne dama leen a bind pour fo yàlla moom la moom la ñu wax de beneen aaya yàlla mu ne ñu wa ma xalaqtu l jinna wal ins illa li yaabuduun yàlla neen dama leen a bind yéen ak jinne yi pour ngeen jaamu ma imam nawawi nee na ci bu muy firi aaya bi nee na wa hada tasrixun bi annahum xuliqu lil ibada ñoom leer na ci ñoom ne yàlla da leen a bind pour ñu jaamu ko kon nag comme yàlla da leen a bind pour ñu jaamu ko fa xaqa alayhim al itina bi ma xuliqu law kon ñoom war na ñëw yittewoo li tax yàlla école lii nii ñu tabax lan moo tax ñu tabax ko fi dama bëgg su ma laajee ngeen tont lii ñu tabax lu tax ñu tabax ko pour jàng basang yi ñu lal lu tax ñu lalal leen ko yére yii ngeen sol lu tax ngeen sol rajo bi mooy waxee lu tax. lii pour lan la. lii pour lan la. loo laaj fii rek am na tontu loo laaj am na tontu loo laaj war nañ laa tontu léegi nag ñun nañ laaj lan moo tax yàlla binduñu ku nekk na laaj sa bopp lu tax yàlla bind la ku nekk na ko laaj sa bopp. déedéet sa bopp ku nekk na laaj sa man lu tax yàlla bind ma. lan ngeen di tontu. gis nga doo am leneen de. doo am leneen de lan ngay am mooy pour nga jaamu ko ku nekk laajal sa bopp fii li ñu wër lépp loo laaj rek am na lu tax loo laaj rek am na lu tax kon nag imaam Nawawi nee na war ngaa góorgóorlu ci li tax yàlla bind la kon nga nekk ci nga bañ a fowe sa waxtu demee naa tey bu ñu jógee fii ci camp bi camp bi bu jeexee suñu delloowaat ci kër ga sànq dama yóbbu benn malaat kër Shayba bokk na ci lim ko wax yow mbaa boo jullee fajar ba pare doo tëddaat mu ne ko ah kay mu ne ko loolu tax seytaane duñ la bàyyi yow seytaane du la gaaw a bàyyi comme ça yow tuuti du la fajar tëddaat xoolal jullit bi nga xam dafa julli fajar ba pare bëgg a tëddaat. jullit bu julli fajar ba pare bëgg a tëddaat xaaral ma tëddaat waaye ba 10 heures. ndeysaan xoolal foofu liggéey bi léegi nga tëdd ba 10 heures yow jigéen nga nga yeewu yaa ngi waroon raxas yaa ngi waroon bale yaa ngi waroon yaa ngi waroon yaa ngi waroon liggéey boobu ndax ndax dina sotti añ bu naajee ngo añ bu nara naajee ngoon ah waaw parce que da nga julli ba pare tëddaat diggante julli ba pare xoolal li fi nekk ci ay tiyaaba ci say askar ci jàng alquran ak sa liggéey yoo war a liggéey mbokk yi nañ leen góorgóorlu ci ñetti taxawaay war nañ cee taxaw ñetti taxawaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na igtanim xamsan qabla xams préparel juróom balaa juróom ñëw lii ni may lim lii ni may wax su ma ko waxee ba pare dinaa ko laajaat fii mbooloo mi ñi ci kanam nag ba ci ginnaaw ñëpp du ma bàyyi kenn ba ci ñële juróom yi may wax su ma ko waxee ba pare dinaa xëcc fi ay nit ne leen nettali leen waa di juróom yi ku yabo nag nga préparé du ma bàyyi kenn nag mun naa woo sax amira yonent bi nee na préparé leen juróom balaa juróom ñëw mun a shababika qabla haramik fi nga nekkee ndaw jaamu yàlla balaa ngay màgget ki nga nekkee ndaw xale bu ndaw yaa ngi nii yaa ngi nii xale nga xale bu ndaw jaamu yàlla balaa ngay nekk meer jaamu yàlla balaa ngay nekk màgget ki nga nekkee ndaw ngay préparé shababika qabla haramik fi fi nga nekkee ndaw fi ngay góorgóorloo jàng fi ngay góorgóor olof yi dañuy lépp ñu ne kaala kaala bopp ak ndigg fan la ci fa war a jiitu kuy tontu nekk ci loxoom kaala xam ngeen kaala paa yi def kaala kaala gi ci bopp bi la waroon jiitu wala ci ndigg li kuy tontu na nga yëkkati sa loxo kaala fan lay njëkk a nekk kaala fan lañ ko war a njëkk a teg yow ci ndigg kaala ci ndigg lay njëkk mujje ci kaala bu njëkkee ci bopp xam ngeen fu muy mujje ci ndigg bépp paa yi gis ngeen paa yi ngeen gis léegi nii ñu takk seen ndigg nii ñoo jaar ci mbedd lu waay man da ngeen leen di wax ne kaala gi ci bopp bi la waroon ci ndigg li la waroon njëkk kaala bu njëkkee ci ndigg rek ci bopp lay mujje waaye bu njëkkee ci bopp pour góor fu muy mujje ci ndigg loolu lan lañ ci bëgg a wax loolu mag paa yi lan lañ ci bëgg a jàngale mooy bi nga nekkee ndaw jaamul yàlla takkal sa ndigg te jaamu yàlla benn borom xam-xam daf ma ne ndax yóbbu nga sa doom daara ma ne ko waaw mu ne ma xale yi da ngeen leen di def ay weñ yu ñuul bu ñu màggee nekk or xale yi da ngeen leen def weñ gu ñuul suñu màggee nekk or mais boo amee doom nga def ko or bu màggee nekk weñ gu ñuul dëgg lu bu wax wax yi or ak weñ gu ñuul boo ëpp valeur or ak weñ gu ñuul ban moo ëpp valeur or soo amee doom mu nekk xale da nga koy def weñ bu ñuul su màggee mu nekk or ndeysaan tey boo mokkaloon alxuraan xoolal foo tourné rek mairie ñu ne kii sama doom la mokkal na alxuraan da ngeen ñu ne ndeysaan oui ndeysaan fi mu nekk nii bu ñuy bu ñuy conférence su ñuy woo ñuy jàng ñuy jàng ñan la ñuy woo ñi mokkal waaye am nga ñu xamul dara kenn du leen woo ana ñi mokkal nga ne mu ne maa ngi ñu jox nga gis mu commencé awuzu fu ñu dem rek dañ koy woo bu dee góor nag foofu moo gën a garaaw moom la ñuy def imam moom la ñuy def lekk fu mu yegsi gars yi daa téye daal lii waaw am na ñoo xam ne tey bu ñu naanee ci kaas sax da ngay gis ku nekk ne ma jox leen ma kaas bi am na ñoo xam ne seen yére bu ñu ko fóotee am na ñu koy naan jox leen ma ma naan fóotin mi waaw ngir lan xoolal rek ngir ne dañu bëgg tiyaaba dañu bëgg a barke loolu rek moo leen ci dugal doon tamit loolu kenn du ko def gis nga parce que ñooñu dañoo jàng kon nag mbokk yi fi nga nekkee ndaw jaamul yàlla balaa ngay màgget ñaareel mooy sexaatika qabla sakamir fi nga wéree jaamul yàlla balaa ngay feebar ñun ñëpp a ngi ni wér këng ñun ñëpp a ngi ni wér dara jotuñu kon nañu fonk jaamu yàlla balaa feebar di ñëw feebar nag kenn xamul kañ la feebar xamoo kañ la de yaa ngi ni dem rek mën ngaa tëdd léegi yàlla branché la ko roj ci wér gi ba mu set ku la gis tey jii daal di jooy ne kii nii la mel léegi ñu ne ah nii la mel kon nag fi nga wéree jaamul yàlla xamoo kañ la la feebar di bett wa ginaaka qabla faqrika fi nga amee jaamul yàlla balaa ngay ñàkk fi nga amee nga am sa am am jaamu ci yàlla lépp loo dégg ci lu baax génneel sa alal nga joxe wa firaaxaka qabla suxalik fi nga amee temps jaamul yàlla balaa ngay occupé wa xayaatika qabla mawtika fi nga dundee jaamul yàlla balaa ngay dee juróom yaa ngi noonu fi nga nekkee ndaw jaamul yàlla fi nga nekkee ndaw jaamul yàlla fi nga nekkee ndaw jaamul yàlla balaa ngay màgget fi nga wéree jaamul yàlla fi nga amee jaamul yàlla fi nga amee temps jaamul yàlla balaa ngay occupé fi ngay dunde jaamul yàlla balaa ngay dee juróom yaa ngi noonu yi ngay teg sa kanam maa ngi ni damaa wér kon lan moo ma war ma jaamu yàlla balaa may feebar maa ngi ni damaa am lan moo ma war ci sama am am ma jaamu ci yàlla balaa maa ngi ni am naa temps lan moo ma war ci sama temps bi ma jaamu yàlla balaa may occupé gis ngeen am na sama benn pap dafa am gan gan bi ganu syndicaliste la julli jot nit ñi jàpp ba pare rek benn waaye ne syndicaliste bi paa la de ñu ne ko demal nga jiite mu ne ah je ne sais pas fort en matière de prière parce que kooku bi mu amee bi mu nekkee ndaw jaamu jàngul woon jaamu woon yàlla xamul lan la wax mu ne bon côté julli fooruma ci quoi fooruma ci julli fooruma ci julli est-ce que jullit war na wax fooruma ci julli kon nag mbokk yi dañ leen góorgóorlu ay taxawaay a ngi ni yoo xam ne war nañ koo taxaw ci suñu waxtu pour mu bañ a sànku fi ñuy jeexale waxtaan bi ñetti taxawaay a ngi ni yoo xam ne war nañ koo bàyyi xel balaa sunu waxtu di yàqu mooy saatul ixtidoor buñ demee bay waaj a sukuraat war nañ ci bàyyi xel loolu moo tax du ñu foyee sunu waxtu beneen bi suñu taxawee ci kanamu yàlla ëllëg yowmal qiyaam yàlla di ñu laaj lépp lu ñu doon def ci àdduna suñu xamee loolu kon duñu sànq suñu waxtu benn boroom xam-xam bu mag boo xam ne dafa wax wax ju am njëriñ ci la ñuy jeexalee ñu ñaan bur yàlla tabaraka wa taala mu defal ñu ci waxam jooju mu wax tawfiq wax ju am solo la joo xam ne doomu aadama daal bu ko gëmee doomu aadama bu ko defee war naa mën a jëriñoo dundam lépp dundam dootu ko fooye xam ngeen ne ñi perte mooy ñi nga xam ne dañu yaakaar ne dootuñu dajeeg yàlla tabaraka wa taala borom bi ne qad xasira allazina kazzabu bi liqaillah ñi nga xam ne dañoo yaakaar ne dootuñu daje ak man ñooñu wax dëgg yàlla perte nañ perte nañ dëgg dëgg perte ku dem nag doomu aadama bu demee ba yaakaar ne dootu dajeeg yàlla rek adunaam yàqu na mais bu la wóoree ne tey di nga dajeeg yàlla ku mu wóor ne tey di nga dajeeg yàlla lan moo la war mooy nga góorgóorlu wala fi nee nañ daw ca ba ngay am daw ca ba ngay ami tànk ñun ñii tey am nañu tànk sunuy tànk ngi nii mën a daw mën a def lu nekk kon nañuy waaxu ci jaamu yàlla balaa bis sunu tànk yi dootul taxaw ak bëri tey ci ay meer ak bëri ci ay màgget yoo xam ne waxee ñu ne la ay man tey sama tànk yi ak bëri mooy duñu sax dama koy xool ci julli naafi la julli naafi la chaque jour dañ ma naan su naafi la koor jotee rek su ma waree jiite maire yi ñëw ne ma oustaz oustaz dëggatalal kii rakk yi ndax mënuñoo taxaw taxawaay bi yàgg na nga gàttal oustaz gàttalal de bul guddal su yenn saa yi bu ma xamee guddal suba du ma gis maire yi bare ne du wax nañ la démb gàttalal ngay jàng dëgër bopp ñun boo gàttalee ñu ñëw boo guddalee ñu toog lan moo tax léegi ñoom mënatuñu taxaw sax ndeysaan nga jàng iqra iqra ñu ne loolu daa gudd iqra ñu ne daa gudd sa rakk bi dafa gudd iqra kon ku jàngoon xoolal yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba bi mu ngi nettali nee ne dañoo julli gee ba pare Abdullah ibnu Abbas xaw ma Abdullah ibnu Mas'ud ñoom ñaar kenn Abdullah ibnu Mas'ud Abdullah ibnu Mas'ud nee na dañu dañu naafila gee ba pare rek yonent bi daa dugg néegam mu ne ma ñëw di ko nuyu si fekk benn soxla bu ma doon wax ak moom ma ñëw fekk mu kabar di jàng Fatiha ma ne kii day naafila ñaar raaka ma kabar nekk ci ginnaawam yéen bi daal di jàng Fatiha mu jeex mu jël Baxara mu ne ma ni sama xel bu ci amee ay quelque ra aaya rek day rukkoo Baxara daal di jeex ban saar moo ci tegu mu jël Aala Imran te li garaaw mooy bi Aala Imran jeexee yonent bi daal ne Allahu akbar rukkoo lu toll na ñaari saar yi la rukkoo bi mu siggee lu toll na ñaari saar yi la sujjóot mu sigi mu des ñaata rakka mu des benn mu jël beneen saar bi ci tegu nisaay nisaay jeex mu jël maayida bilaal di noddu asalaatu xayrum min annawmi fajar gi di jeex tak ñaari rakk fajar gi jeex ñaari rakk guddi gi jeex ñaari rakk ñun fii tey boo fi jàngee inna anzalna fi laylatil qadr nga dékku ne yow yow ilimaan buy fitnaal nit ñi nga yow anta fartaan munoo jàng wala asri ak inna atayna te léegi danga dama leen dox boo toogee ci kanamu film di seetaan télé doo yàkkamti film bi jeex su boobu jeexee it nga changé scène yi. nga jàpp scène yi changé pour am beneen yaa ngi kanamu yàlla nag nga yàkkamti jóg ah te boo toogee kanamu yàlla ngay nañ gaaw. nañ gaaw ah nañ kii nañ leen ragal yàlla kon incha allah mbokk yi maa ngi tënk foofu waxtaan bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu wax bi gën ci wax yi mooy wax